bismillahi wa ala millati rasul wa manhajul kadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki taalibe yi nga xamante ne bi may seen jëw yi dañuy féete Sine Saloum féete ci région de Kaolack ak région du Diourbel dama bëggoon diggante su suba ginnaaw suba yëpp ñu dem ci liggéey ba xew xom ñu dem ci liggéey ba ci ngóob ma waaw loolu loolu loolu daal laa bëggoon moom ñi féete ñi nga xam ñoo féete pour moom nañ fexe ba liggéey bi suba ginnaaw suba kenn bañ leen ci amal waaw kaddu yi nag dama ne sama digganteeg euh, Serigne Saliou la sama digganteeg Serigne Saliou la ak man njabootam ndax doo may ko fi nekkal ak Moustapha bi nga xamante ne sama idol waaw Serigne Moustapha kep sax jar defo. actuellement nag Serigne Saliou Serigne Saliou nag seq yoo xam ne yëpp mën nañ su ko leeral moo tax foofu moom ci Sine Saloum ak euh, région du Diourbel moom liggéey bi bu leen ci kenn moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man xamila saalihan itam nag fa li nafsihi hmm. fi amanillah